so mun nga ca ah, mun nga ko tëdd Ousmane Sonko nag ah, dafa njuy ay pexe njiit réew mi Macky Sall ma mu tuumal ne eh, yéene mooy fexe ba sànq njiital Pastef ci wàllu politique mu bañ a bokk ci élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko moo ni waxee démb ci janoom ak taskatu xibaar yi Walf Quotidien yi tamit ah, ñu xibaaral ne lu waaju ci indépendance su magistrature bi ki nga xamante mooy Souleymane ko joxe na ci xalaatam ci livre bu bees eh, mu oh, génne bees duppee ko ndax jotul ñu saytuwaat yeesalaat euh, conseil supérieur de la magistrature mu ngi ci Walf euh, Quotidien. ñu ñëwaat ci Ousmane Sonko ak Libération. Libération lam ñu dégtal tribunalu Ndakaaru foofee lañ koy xaar Ousmane Sonko àllarba tey ji lu ne mun na cee tukkee Ousmane Sonko njiital Pastef ak Ndeye Khady Ndiaye mi moom euh, salon de beauté salon de massage goge 18 beauté fas yéene nañu jàkkaarloog juge bu huitième cabinet bu 9h jotee jàpp 10h njiital Pastef ne amul benn benn yoon kóolute ci justice su Sénégal eh, terewul itamit dina dem wuy ji ñeneen ñoo xamante ne ba léegi eh, xamaguñu seen ëllëg fu ñuy mujjee fukk ak eh, juróom-ñaar ci ay jigéen waa PASTEF ña doon amal te ndefalu ñaxtu te ñu teg leen loxo yéen cabinet ba léegi mënaguñ leen a déglu ci googu lépp dossier tey jii daañu jàkkaarloo ak àttekat bi. l'observateur fu mu def taxaw seet. l'observateur taxaw seet lu gamu def mooy mbirum Ousmane Sonko ak juge bi tey jii lay doon weeru mars goo xamante ne dugg na ci taarixu politique Sonko Ousmane Sonko njiital Pastef ne dina dem wuy ji tey bokk na ci Sidi Ahmed Ndiaye Sidi Ahmed mbay ma ñu tudd ci googule dossier jàpp jàkkaaroo na ak magistrat bi ki démb Ousmane Sonko moom artu na nguur gi artu na askanu Sénégal ci lu lépp lu mun a xew ci bile dossier l'observateur dem na fekki Adji sar ca dekk cosaanam di maya ak jirnda foofee ci arrondissement bu Fimela ca diwaanu Fatick bokk na ci ay bàjjenam wax nañu bàjjenam di satu ndong eh, xam ne Adji Sarr mi jur coow li tey askanu Sénégal daañu xam ne am na mbokk moom Adji Sarr daañ ko taxawu ci bile dossier mu ngi ci l'observateur Ousmane Sonko tey lay jàkkaarloog àttekat bi ma ngoog euh, mbirum suite boote coow la jeexagul Ousmane Sonko fas yéene jàkkaarloog juge bi mhm. bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien Les Échos àdduna ci Les Échos ne Ousmane Sonko ngoog dina wuy euh, juge boobule euh, bokk na ci juge Mamadou Seck bu huitième cabinet Ousmane Sonko xamal sénégalais yi ne waxtu wa jot na ñu xippi seen gët xool li xew ci nguurub Macky Sall ndax euh, yéeneem mooy euh, fexe ba suruxal ak gàkkal wala boog sànq woy politique u Sénégal yi féete ci ku jég politique bi euh, moom Ousmane Sonko ne dossier bi nga xamante ne mbirum viol tudd nañ ko ca waaye nag dañ ko bëgg a féetewee boor maanaam sërëxal ko ci yeneen i dossier bokk na ci ne njiitu réew Macky Sall ngir fexe ba Ousmane Sonko doon bañ a doon candidat bokk na ci lu ko ñor ci jamono ji njiital Pastef moo ni waxee. na ci. le quotidien Ousmane Sonko ak janoom euh, ak euh, juge bi tey ji lay doon ndigal la jot gu bawoo ci sëriñam bi ko xamal ne demal wuy ji yéen cabinet opposition bi ñoom jóg nañoo fippu ngir ay euh, tamit yóbbu mbir ya ca conseil constitutionnel ngir mun ko neenal COSIDEP di kuréel gi yëngu ci wàllu njàng meek njàngale mi ñaawlu na tegum loxo jàngalekat yi. l'évidence wax Sonko l'évidence ne Ousmane Sonko moomule dina dem wuy ji tey sëriñam di Abdou Mbacké moom jot ko soñ. ñu ñaax ko ne lu ci euh, mun a indi dal ci réewum Sénégal faw nga jëm guy ji euh, juge bi waaye nag euh, député bi di Ousmane Sonko xam na ne ne njiit réew Macky Sall xam na xil kan mooy aji saar te yàggul dara njiit réew Macky dalal na aji Sarr ci audience foofee ca Palais ba Ousmane Sonko moo ni waxee. le témoin la mu séddee. témoin la mu séddee mooy Ousmane Sonko daanaka wax xeet la def ndax ci ndorteel waxoon na ne xel xalaatul mu dem wuy ji juge bi waaye nag ci mujjanteel mujjee na itamit fas yéene soldat tàllam tey ji ci àllarba ji wuyu eh, juge bi ndax ndigal ga mu jot ak itamit eh, la mu jot a diisoo ak ay avocat ba na mu feggool ci ku jég politique beeg partem di Ousmane Pastef. Walf euh, donc euh, je dirais Vox Populi fesal na Ousmane Sonko. mangoog euh, Ousmane Sonko leeral lu tax wax waxet gi am ci dossier gi jëm ci war a mën ji eh, juge bi wax na ko démb diisoo na ak njabootam ak ay jege ñaaleem ba ci ay avocat am ak sëriñam. ne fippu ga xamante moom la ñu toppee Ousmane Sonko. ko bu fekkee ne lankoon la def ne du wuy ji gars mun nañ ko fekk këram ak doole taxal ko leneen lu wuuteeg dossier gañ koy tuumaal mu ngi ci 24 heures. journal tribune lu mu ci wax. Ousmane Sonko bu defu ndànk tekk lay def maanaam du tontu laaj yi nga xam ne moo nar a tukkee ci juge bi mhm. mun nañ ko xaar ci bile dossier mu ngi ci euh, tribune. direct news. Khalifa Babacar Sall woo na askanu Sénégal ngir ñu jóg jàmmarloog nguurub Macky Sall mi mu ne dafa bëgg a nërmel euh, démocratie bu Sénégal. source fësal. Ousmane Sonko ko war wuy ji tey ca kanamu juge bi yéen kaa bi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk. ñu jàll ci las quotidien las ne lu aju ci coronavirus matal na at ci mim réew askan wi dëkk ak feebar gi mm-hmm. lu ëpp juróom-ñetti téeméeri doomi aadama yu faatu ci mbas mi las xëy jox kàddu waa kër docteur ci seen xayma ga def démb. Euh, corona beeg la mu jot a gàllankoor ci réew mi bu weesoo paj mi sax nasaxal na li nga xamante ne mooy koom-koomu Sénégal. jant lay ne benn at la goo xamante ne askanu Sénégal dund nañ ko mbas mi di coronavirus eh, xayma gànca def li mu doomi aadama yi ci am coronavirus li mu doomi aadama yu mu jot a faat ak itamit ñi des ci lalu hôpital ak matuwaay yi ci waa kër docteur bo boobu ba léegi. le mandat nee na attention danger. attention danger. mu mm-hmm. ngi koy xamleek eh, xamal askan wi ci café Touba gi nañu def ndank ndax du ngeeneel ci wergu gu yaramu askan wi bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay bi di le eh, mandat. yéen kaay tàggat bu Sénégal euh, ca euh, CAF euh, candidat la ngir dagan baatu Afrique mun a jiite ëllëg kuréel gi saytu footballu Afrique di CAF maître Augustin Senghor maa ngay jëmmal boppam. ginnaaw football bi kii moo ay ci mbëru géejawaay di Eumeu Sène daan na fi Lac de Guiers 2 daan fi Balla Gaye 2 yéen cabinet ndax bi yoon ndax du daanaat Lac de Guiers 2 ci seen combat laaj lagu sampu ci yéen cabinet suñu lamb mi xëy fësal njiital écurie di Eumeu Sène tënk la incha allah a yaatoo bi ju ci am daaf. bu soobee sunu borom sant la gërëm la Abdoulaye Bopp lañ àndaloon mbokk ak yi xibaaru 8h yi. ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laa ne. waa mi naan général ak si nañ. yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa biro sa kër.